أعوذ بالله بسم الله بارك برم توبا السلام عليكم ورحمة الله ودار جي نيو لي يوبا اختي بو لين زياره دي بالو ني باخ تي بال ني باخ دي نيان يالا مو ديف نيو جودت حقا ديف نيو اي مريد صادق خير ني تشك جوب تساخال ني تي بافاو جاب ندال ني غرمال سيرين توبا ديف ني نيو دغ دغ طالبي توبا يو سيرين توبا نانغول سينو طالبي تي غرم كو تانيفم ñu ñaan yàlla mu may ñu gudd fan gu ànd bu wér te may ñu mujj gu rafet defal ñu ndimbal ak sutura te jil ñu bunti njariñ yi bunti ngërëm yi bunti ngëneel yi xeewal yi te jël ñu bunti lor yi bunti natt yi bunti musiba yeeg balaa yeeg tiis yi ci barke Cheikhul Xadim gannaaw loolu yi seen murid bi Sëriñ Tuuba bi muy bëgg a jóge Jolof di ñëw njaareem dafa am naar bu ko wax ne man de dama màggat te yaa ngi dem te mën naa am dootoo ma fi fekkaat ma bëgg nga jox ma ak ñaan goo xam ne bu ma faatoo ñu boole koog man sëriñ bi ne ko loolu de du ko jar ndax man yàlla sunu borom subhaanahu wa taala may na ma sama taalibe yépp bu ñu faatoo ndoo woon ci senn saa kenn ku nekk mën naa laa fekk ci sa bàmmeel nangu la daane ko waaye ku dégg net li bii day li ma ciy bëgg a teg na nga ko ci teg képp ku dugg ci biir bàmmeelam te fekkoo ma fa la tee nga fekk ma fa yaa ko def mbaa yaa ko wax mas naa ku ñëw jébbalu ci sëriñ Tuuba bi mu jébbaloo ba noppi sëriñ bi nangul ko bi mu noppee mu ne sëriñ bi man de ci tariixa sàngam laa bokkoon waaye nag sëriñ bi ne kon déglul mu ne cel sëriñ bi ne ko fii deesu fi jëw deesu fi déglu kuy jëw ñoo ñii ngay bëgg a wax nekk ay jëwriñ lañu woon ci toolub lislaam waaye léegi man mii may jëwriñ ji benn tool jenn jëwriñ ku ne duma dogal de daa fekk fa soo woo bay sëriñ tuuba daana wax ne bariwaana ku ñuy caw ci biir bàmmeelam te boo ko laajee ana lu ana lu la yóbbe ñu di la caw mu ne la lu ma waxoon la bariwaana ku daaju ca digg sawara te boo ko laajee ana lu la indi fii mu ne la lu ma lekkoon la Sëriñ Tuuba nee na képp kuy def lu yàlla santaanewul te bàyyi woo li muy tere te xamoo dara lu mu wàññi ci sabtaar wàññiwul ci sa jëmmu dara wàññiwul ci sa wërsëg dara wàññiwul ci sam xel dara ba nga yaakaar ne li ngay def dalaa jikk nee na boo tëddee bul nelaw ndax danga àggagul ca bis ba taxoon yàlla di aaye loolu rek waaye bis boo yendu jee mbaa nga fanaani danga xam ne yàlla sunu borom la mu waxoon jógu ca Sëriñ Tuuba nee na ñaar ñoo seen ñuy ànd seen diggante na nga ca wax lu rafet wala nga maanu ca ndax sunu borom bind na seenu ànd njëkk seenu ñëw jamono ca lawhul mahfuus wax waxtu woo xamee ni dig ba jot na ba ñu war a xamante war a ànd sunu borom ci xereñam mooy def lu leen di boole waaye bu ñu àndee bul ci yéemu ci ak loobaate ci wàllu ay at wala juddu wala am-am wala taar wala lu mu mën a doon waaye nag ñaar ñu bokk dëkk bu ñu jëm ñoo mën a ànd aw yoon ñaar ñu bokkul ab dëkk bu ñu jëm mën nañoo bokk garabu yenn ndukaay waaye bu dar desul lu may gont ñu séddoo ab yóbbal masaam ñu sëriñ bi di waxal ne leen ndax xam ngeen ku mën a teral ab noonam ñu ne ko xanaa nga dimbaleen ci mu ne ab muñkat ak boroomub cër ab muñkat ak boroomub cër sëriñ Tuubaa nee na am na pay boo xam ne day yatt laa fa fekk laa fa fekk ba ca njëkk mooy ba ca njëkk mooy ñàkk ba noppi tabe ba noppi tabe ñaareel ba mooy ñaareel ba mooy wéet ak loo bëgg ba noppi maandu ca ba noppi maandu ca ñetteel ba mooy àtte sab xarit ci dëgg ñett yi mooy tijji pey ba ñàkk ba noppi tabe wéet ak loo bëgg maandu ca àtte sab xarit ci dëgg sëriñ Tuubaa daana wax ci àdduna ne àdduna day façon naaru góor la woo xam ne saa soo xëyee di ko yafal te doo ko war mukk nee na woon it àdduna façon naaru góor la woo xam ne kem noo ko yafale noonu lay toroxa noonu la lay toroxale àdduna façon naaru góor la woo kem noo yafale noonu la lay toroxale yal na nu yàlla sunu borom may ak dégg ak topp ak jëriñu barke Cheikhul Khadim